parasol nekk li ñuy faral di gëna jëfandikoo ci jamono nawet waaye ren daa mel ni demewul noonu bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu fekk foofe ca marché Colobane. Hmm, parasol waaw danaa koy jëfandikoo mais ren moom li ma ko jëfandikoo bariwul quoi. comme ni ma ko daan jëfandikoo daal ren melul noonu. ñu ngi ñëwaat ci li nga xamante ni moo waral seen ñàkkum jëfandikoo parasol yi. waa parce que ren gisuñu taw yoo xamante ne bii yu jar ñu koy kii la parce que bi ma yoroon bi ma jëndoon daaw moom laa yore ren. waaw parce que daaw taw yi ñu gis fii gisuñu ko fi daal. marché Colobane bokk ci marché yi gën a màgg fii ci ndakaaru waaye taxul jaaykat parasol yi bari foofu Kalidou Kane bokk ci jaaykat yi néew yi fa fare di dikkaat ci boobu boobule business. des fois su tawee moom su tawee client ci lay ëpp quoi moom su fekkee tawul ni moom par ndànk-ndànk rek quoi. waa su neer bi day yokk waa parasol yi. sans départ rek am na euh, am na jar 3000 yooyu noonu 4000 sans départ si qualité yi rek daal qualité yi bokkuñu quoi bu gën ndaw 1500 lay jar. donte sax ñi gën a bari dañ koy jëfandikoo ngir aaru ci nawet bi am na ci ñi nga xamante ni ñoom naaj bee tax ñu koy utiliser waaye taxul njaay mi demee noonu bu ñu sukkandikoo ci li ñu joto seetlu foofee ca marché bu Colobane